Euh, bin sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di wax euh, jaajëf euh, gàcca ngalaama tey nag dañoo amoon mbégte bu rëy euh, la coordination de PASTEF au niveau de Thiénaba mais également la coalition PASTEF les patriotes ñoom ñoo doon accueillir le chef de euh, de liste euh, euh, de de de de tête de liste départementale son excellence l'honorable député Amadou Ba moo ñëwoon ànd ak une forte délégation ñëwoon doon ziare le xalif général de Thiénaba Serigne Hassan Seck macha allah Serigne bi déglu na ko tatagal na ko teeru na ko ñaanal ko yàlla ñaan yàlla élection yi nga xam ni moom lañ dëgmal muy élection yu crucial yu am solo muy les élections législatives yi nga xam ne day am 17 novembre 2024 yàlla defal ñu ndam ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim eggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin kii mooy euh, le directeur de campagne de euh, Cheikh Amadou Ba nekk koo xam ne nag ko am taxawaay la jàmbaar la macha allah boo ko defee euh, sëñ Mor ñu laaj la rek say yëg-yëg en tant que directeur de campagne ci visite bi ngeen ñëwoon def ko au Thiénaba euh, merci Ndongo waaw kontante lañ am kontante bu mat sëkk kontante ci d'abord promptitude bi nga xamante ni ne tey euh, xalif bi accepté nañu recevoir ñu parce que xam nañu c'est pas évident te aussi ñun dañoo nekk ci organisation yu bëri nekk chaque jour di planifier chaque jour ñu ngi planifier fan la ñuy dem ak lan la ñuy def donc muy am ay poches yoo xam dañ ciy des ñuy jima xool ci chef religieux ndax pour ñun ci ni ñu tëralee campagne bi ak ni ko suñu tëddali sa xalaatee mooy balaa ñu woon dugg ci campagne bi ci lañu woon a profité dem ci euh, chef religieux yëpp ndax c'est pas pour rien tey jii su fekkente nii ne da ngay sumb dara mu nekk réunion wala mu nekk leneen nga ne na nga njëkkee ñaan donc ñun ñu jàppoon ni aussi balaa ñuy commencer campagne bi si boppam dañoo waroon wër suñu kilifa diine yëpp nga xam dañ leen yaakaar ci àllaaxira mais yaakaar leen ci àdduna ndax bu ngeen déggoo discours Amadou Ba leeral na ko bu baax ndax dafa am ay orientation yoo xam te fii ñu jëm diine daf cee am solo kon nag ñu bëggoon ci tàmbale ba euh, ñëw tàllal leen suñu loxo ñu ñaanal ñu pour ñu def campagne bu baax waaye aussi ñu mën a orienté population yi mën a orienté citoyens yi ci fi ñu jëm ak niñ ko bëgg a jëmale te ñoom seen rôle malheureusement nag Euh, campagne bi nekk campagne bu bette ndax élection législative anticipée la mënuñu ko woon def ca commencement campagne bi moo tax nag ci biir campagne bi ñuy xool chaque suba euh, chef religieux yi nga xamante ne disponible nañu mën ñu recevoir ñu fexe xool nan la ñuy def ba buggal ko si planification moo tax ma koy remercier di la remercier yow tamit ci li ñu ko yombalal ba tey jii ñu mën a def délégation bu forte ñëw euh, mu recevoir ñu. mais également mu dégluñu mais li ñu ci gën a neex également mu jëfe ay déclaration yu forte yoo xam ne yaakaar nañ fi ñu jëm ak li ñuy def dinañ jëriñ bu baax a baax xanaa fàttali waat rek ñi nga xamante ne ñoom lañu àndal tey jii ginnaaw suñu tête de liste honorable Amadou Ba ñi ngi ànd ak euh, ñi nga xam ne dañ leen investir ci Thiès ci département Thiès te ñi nga xam ne moom la ñu war a àndal ci liggéey bi ci assemblée nationale muy euh, Mariama Ndiaye Mariama Ndiaye Ah, voilà muy Marama Ndiaye nekk euh, Zahra Ndiaye nekk également ñaaña jeeju voilà ànd ci tamit ak euh, ay alliés alliés yi nga xamante ne dañu ñëw jàpp ci Birane dañ ko Birane bokk bokk fii moom dafa taxawe ñaari ñaari ñaari tànk wala ndax dafa nekk effectivement au niveau national bokk ci ñun bokk ci investi waaye également mu am taxawaay fii ci Thiénaba ndax mun nañ ne moom mooy communam donc aussi tamit ànd ak ay alliés yoo xam dañoo ñëwoon euh, yokkal ñu doole moom mooy Samba Samba Fofana waaye également docteur Djibril Sarr salaamaaleykum wa xam naa damay jox euh, l'honorable député rek mu sànni ci kàddu yoo xam ni mënta ñàkk kon euh, Cheikh Amadou yow noo gisee visite bi ban yëg-yëg nga ci am. ah asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu di nuyu waa Thiénaba yëpp <clears throat> di ci jiital. la xalif général Baye Xasan di ñaan yàlla <clears throat> dëgëral taxawaayam yàlla dolli ko ko wér ak euh, délégation bu am solo bii mu ñu teertoo nekk na une un grand honneur pour ñun mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla xalif général ak woo njaboot gi yëpp mm-hmm. njaboot gi yëpp mu woo leen mm-hmm. pour ñu tertuñu wax ñu ay dénkaane yu ama am solo loolu ñu ngi ko koy sante di ñaan yàlla wàcc fi ay xéewal yu dul jeex di sant waa ba hmm. di ñaan rek jàmm hmm. li xalif bi wax hmm. lépp dégg nañ ko jàmm rek incha allahu rabbi moo jara ñaan ci réew mi dégg nañ nag ay kàddoom dégg nañ lim ñu ñaax yëpp ci responsabilité yoo xam ni député yi dañ ko war a am donc ak taxawaay bu ñu war a am ci réew mi je pense que ndigal loolu ak li mu wax ci président Ousmane Sonko yëpp dinañ ko ko yeggee incha allah di wax ni le ministre su Souleye Diop vraiment moo waroon a teewe jataay bi. Hmm. ab xat-xat bu ko bet hmm. moom moo tax mu dem. Hmm. waaye ak coordination département Diawara tamit mënul woon a ñëw. mais daal ñu ngi remercier vraiment famille bi ñu ngi remercier sunu frère Moussa Ndongo. ak toute la coordination de ba ci taxawaay bi ñu am. incha allah ñu ngi am nañ mbégte moo xam ni amul fu mu commencé amul fu mu yem te vraiment ñu ngi leen di sant wax dëgg yàlla jërëjëf waa Thiénaba. Thiénaba TV à votre disposition